kontaan nañ ci yenn jaajëfal leen bu baax a baax tey nag dañu def déplacement ñëw fii ci Diofior Diofior di dëkku làmb Diofior di dëkku ay champion ci champion yooyu ñu seet si ci kenn ka nga xamante ne bii ci làmb la bokk ñu naan ko Xaddaafi ñii naan ko Doudou Sané dañuy dugg si biir xool ko naka la toogee waxtaan ak moom ci wàllu làmb lan moo ko dugal ci làmb fan la teg bëtam ci làmb ak fan la bëgg ak ci làmb loolu yëpp ci kanam lay doon bu ñu duggee ci biir 100 pour cent Xadaafi fii ci Leewtoo TV mbay Babacar ak Cheikh Ahmed Tidiane kebe voilà jërë ngeen jëf mbokk yi nuyu waat nañ leen bu baax euh, comme ni leen ko waxee bi ñu taxawee ci bunt bi léegi. tey dañu def déplacement nag ñëw fii ci jofior wax naa leen ko Diofior dëkk la ba nga xamante ne bii dëkku làmb la wante dëkku ay champion la ci noonu lañu seet si benn champion ñu naan ko Xaddaafi ñii naan Doudou Sané champion ñu ngi lay dalal jàmm di la nuyu. waaw ma leen di fay rek di nuyu ñëpp di nuyu waa Diofior bu baax a baax di nuyu waa Sénégal waa diaspora bi fàttewuma leen waa Casamance. waa région Fatick yëpp di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp fans du sànne fu mu nekk maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di kontaan sa teewaay fii rek di la ne daal jaamu fii mooy Diofior jaajëf champion euh, gannaaw nuyo bi léegi du ñu def nag lu dul xuus ci biir waxtaan bi Doudou Sané wala Khadafi kañ la dugg ci làmb ak lan moo ko dugal ci làmb 2017 bi laa dugg ci làmb waaw 2017 nga dugg ci làmb lan moo la dugal ci làmb da nga koo donn wala dangaa ngaa rek gis kaay di bëri ngay bëri. non xam nga lu ma dugal ci làmb nag daa yaatu te bu ma koy wax sama xol day yombat jóg ndaxte itamit jaar-jaar bu metti la xam nga man damaa nekk ak sama waajur bu góor mu wàññeeku yal na ko yàlla yërëm te xaaree ko arjana loolu itamit situation familiale bokk na ci lu ma gën a dugal ci làmb. fond fond bi bu ma ko waxee mun nañoo bañ a yëgali émission bi mm-hmm. ndaxte jaar-jaar bi daa métti quoi. ñu ngi ñaanal góor gi suñu borom yërëm ko bu baax yóbbu ko ci ak janaam yu kawee ban moment nga sentir na fi mu toll nii war nga mën a dugg ci làmb ji nag mbëkkante ak gars mooy moment bi ma lay wax nii rek moo tax ma ne la man 2017 laa commencé làmb waaw nga xool 2017 ci laa commencé poids moyen waa léger affaire yooyu commencé. gën a gëm sama bopp am ñu topp sama ginnaaw affaire yooyu gëmoon naa sama bopp mais tey jii booy def dara di yëngatu si dara ba gaa yi topp la di nga am lu gën di nga am beneen motivation loolu laa def nag gars yi topp ma mun ngaa nekk mbër affaire yooyu di wax sama kaw ma gën a motivé si loolu te xam naa tamit lamb bi fu mu may féete lu may fajal yëpp xam naa ko ma gën a jàpp lamb ji comme dañu doon journalier maçon comme bu ñu jàngul ni dañu dem journalier maçon daan doole di lijjante weccet rek fu ñu mun na lijjante weccet rek ñu defi ko affaire yooyu mais duñu dugg si alalu jaamu affaire yooyu ndaxte yarewuñu ko. loolu yëpp jaar-jaar la quoi. waa jàngat la ci àdduna xam nga tamit boo nekkee benn loxo am na yenn yoo xamante ne lépp da koy bugg di dóor di lijjanti sa mère affaire yooyu ndaxte mère bi dooleem tollu noonu. te gis nga kër gi gàlle bi nu mu mel encore. léegi nag mi ngi noonu ay xele la lañu di daan suñu doole muy kàddu gi nga xamante ne bii képp ku ñuy suivre mën na la toucher tamit mais euh, bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ne bii moom mooy sa carrière fan nga njëkk a jëlee li nga xam ne moom mooy drapeau. waaw drapeau moom euh, Faoy ma laa jëlee drapeau maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax poussière waaw poussière boobu laa njëkk a jël. mais saison boobu laa def six six demi-finale poussière quart de finale yi moom musuma mënuma leen compter ma jël benn drapeau boobu saison ma dëpp si ma def poids léger poids moyen ma bàyyi ki poussière ci laa defee raw gadu commencé bu ma defee raw gadu nag ci la affaire bi commencé baax nag affaire bi day gën a tijjeeku ndaxte ci laa demee Dakar euh, sama benn copain Jalma mu ma fa yóbbu woon maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu ay mbokkam jàll ma Youssou Thiaré kooku moom ma yóbbu woon Dakar ma internet foofu saison boobu ñib si def tout droit kii raw gadu ci laa def noonu nag lamb bi tijjeeku affaire bi ma am doole commencé yëngal affaire yooyu gars yi topp ma ma gën a gëm sama bopp ci la saison bi defu si saison boobu mu jàllee ma dem si Habib ba tey fa nekk Grand Yoff kooku moom aw ma am sama grand yu ma topp euh, ñoom ñaan ñoom Senghor gaa yëpp ñoom Ombayaan gaa yëpp bu ma limee jum ñoom Maas gaa yëpp ñoom Mohamed ñoom Abdou Diouf ñoom Magor gi gaa yëpp mafia bi yëpp billaahi aw ma seen fay. yoon bi métti na trop mais na gaa yi jàpp rek dina mus a baax de instant yi dematu demaguñu fenn dañuy door a tàmbale. mais Dou Sané mu ngi liggéey pour ma wax interview sax day jafe. mais xam nga yow da maa bett. xam nga ñun dañoo graaw te dañoo bëri ay ruq-ruq. <laughs> yow moom da nga maa bett eh, ci loolu la ñuy daal di continuer rek mu mel ni da jóge ci poussière dem ci raw gàddu déclencher dem ci tànk yi jóge fa nag dugg ci luur yi mu mel ni at bu jot da ngay déclencher benn benn catégorie jàll ci benn catégorie. chaque saison moom damay remonter drapeau mais loolu itamit ci liggéey rek lañ ko basé ci liggéey rek lañ ko basé ndax tey Guinée boo entraîné wul doo ko def. boo gëmul sa bopp am sañ-sañ si sa bopp doo ko def day métti trop nga yëg drapeau dajante ak poids lourds ñu tase affaire yooyu loolu boo nekkee koy xamante ne da ngay dute kese doo dem ndaxte itamit day day métti ndaxte bu may door a yëg poids lourds fa la gënoon a métti par rapport ak âge bi âge bi moom bu ma waxoon sama âge moom da ngeen ma weddi. <laughs> ban année nga judd. <laughs> kii sama mag la. <laughs> kooku noonu barke sëñ Fallou. kii sa mag la. kii moom ma mag barke sëñ Touba moom. am nga 30 ans. xar. boo xam am nga 30 ans. bul tax ma làkk la séeréer waaye. jéggiiroo 30 ans. non bul ma làkk maa ngi si saa yi maa ngi si 23 24. entre 23 waaw ay ndaw la ñu. wax xam nga lu tax taluma wax ndaw laa te doole laa lijjante. damaa liggéey damaa am doole. mënumaa wax ne maa dàq ci làmb bi euh, ci làmb ji maa dàq bëri mënuma kaa wax mais ku ma ëpp fit ci làmb bi gisuma ko. fit bi lu la fit mayul dara mënu la kaa may mbër da am fit ba pare lu des yëpp complement la. mu mel ni làmb tamit moo yàq sa jàng. waaw làmb moo yàq sama jàng. mais sant naa ci borom bi ndaxte làmb lu mu yàq ci man mu ngi koy defar. waroon def ci jàng yëpp sama rakk yi. dañ ko def ndaxte itamit dinaa leen taxaw taxaw boo xamante ne dinañ jàng. sa frère ñu ngi continuer di jàng. ñu ngi continuer jàng. gaynde am na moment yoo xamante ne dañ dañoo waroon def examen. ma ak sama sœur bi. mais dama doon bàyyi boobu amuñu courant amuñu dara barki Sëñ Faalu dama doon bàyyi ñu jàng ba pare man ma dem doxi maire bi sax du xam du toog gis ma may jàng damay doxi ngoonali ay minuit yooyu ñibbisi ma ñibbisee noonu fekk gàlle bi yëpp tëdd ma ñoo di làmp ji boobu làmp kii làmp ni ndaw yi rek la ñu am ma ñoo di làmp bi jàng lu may jàng tëdd. tey nii ñu nekk si ay bon condition affaire loolu xam nga ne yow loolu noonu yow la waroon. man la waroon waaw ndaxte am xam nga jaar-jaar moom day métti mais boo ko muñee rek yàgg-yàgg day jàll. loolu moo may motiver nag may entraîner. loolu moo lay motiver ngay entraîner di gën a rey sa bopp léegi nag ñu dugg ci li nga xamante ne bii mooy dëgg-dëgg waxtaan bi euh, gannaaw ba nga duggee ci luur yi ñu gis la nga commencé nag di di di wane sa bopp ci li nga xamante ne bii moom mooy làmb ji làmb joo dem ñu gis la nga ak sañsañ bi ngay ñëwee fuuga bi ngay ñëwee ak li nga xamante ne bii mooy xadar bi ngay ñëwee mais bëggoon naa xam euh, ñan nga yan yan champion yu mag ñoo la gën a ñoo la gën a euh, marqué ci làmb ji. mbabat duusaane amul ko ko sonal de mais sa diggante ak Waly Cang day metti damaa débuté fekk ko muy bëre mais am na détail yoo xamante ne jarul xuus yàgg-yàgg dañuy xool ci kaw rek ci kaw la ñuy séentu ñun Waly ñaata yoon ngeen bëre bari na de mais moo moo ëppale lu mu daan nag moo ëpp lim la moo ëpp lim dafa mel ni sa benn noir mais amul problème quoi mais man moom ah du ma toog di wax ci deru mbër lu ma war a wax du ma di limante ak mbër affaire yooyu man saison bu nekk saison bu nekk ay deux weekend lay toog du ma bëri affaire yooyu loolu daa tuuti trop comme ma toog di des fois damay taj ak mbër deux fois ou bien trois fois te du ko amee tamit am na yoo xamante ne moom mënu ma kaa jàpp. waaye kuy bëri ay trent dem ci kaw <laughs> kooku daa mën a topp ñu mu daan. mais mais tamit euh, suñu ñëwaatee ci ci ñi nga jot a mbëkkanteel Cheikh Tidiane Niang tamit yàgg ngeen di bëri. Cheikh Tidiane Niang yàgg na bëri. boobu damaa jóge fii boobu may jàng bëri ma jóge fii dem Palmarin ñu daje Odu Ambourage moo tegoon mbapat boobu teg ci congélateur la fa tegoon ñu daje ñu bëre bëre bu métti ba ñu may ñu temps ñu dëpp ñu mayaat nga njëkk a bëri waaw ñu mayaat ñu temps troisième round mu daan ma ñu ñëwaat xaw ma ban mbapat la ma daane woon encore ñu pare ñu dugg ci làmb yi ci tournoi yi 2017 bi mu daan ma cinq millions yi daanaat ma kii euh, Demba Diop neuf millions yi yu njëkk yi mm. ku nekk final la ma ko daan mm. mais kooku daa yàgg ci bëri mm. daa yàgg ci bëre te daa yàgg comprendre réalité làmb mu ma fekk rek daan ma mais moom moom champion la itamit champion la mais nañu bàyyi xel ne xale màgg na te doole la am. waa affaire bi euh, secret amu ci benn secret amu ci liggéey rek mooy liggéey loo liggéey rek loolu ngay feyeku secret amu ci teegi ne am na yenn yoo xamante ne ay détails la ci man man gëw ku ma ëpp doole ci làmb ji comme làmb simple ni gëw ma ko gisaguma ko boobu. moo ne am na ku la ci ëpp doole. gisaguma ko ku ma ëpp doole. da ngaa da gëm sa bopp. xale bu yëg boppam la. da yëg sa bopp. waaw parce que damay gis boo boo parfois dañ lay tàllal micro. bu yaram yi tàngee nga naan damaa am doole xele màgg na lan moo tax ngay wax loolu. dama liggéey rek mbugaan aw ma fee am petit kooku moom mooy liggéey loolu. mooy mbugaan. petit sama moniteur la. kooku aw ma mm. kooku day bàyyi soxnaam 4 heures matin ñu ànd garaade. bu ñu ñibsee dix heures ñu dem salle midi une heure ñu ñibsi ngoon ma ànd ak sama beneen équipe ñoom Seeku Diouf gaa yooyu maa leen di nuyu bu baax a baax ñoom Omar Tine yooyu ñuy ànd ma def ni comme koo xamante ne liggéeyul ci suba si ñu ànd liggéeyaat lu métti ma ñibsi vingt et une heures Doussané dem na tëddi vingt et une heures nga tëri. vingt et une heures ma dem tëddi bu may préparé sama photo sax doo ko gis si net bi lu gën ak yéeme sama photo doo ko gis si net bi bu may préparé musoo toog nit wane entraînement du saane musul am loolu secret sama secret la am na yenn yoo xamante ne tolloowuma foofu tey dañuy rawante mbër yu bari ñooy rawante mais secret bi yëpp ku nekk na xam lu muy liggéey nii lay lii lay liggéey saison bi bu tijjee ñëpp dañ ko xam liggéey nga war a liggéey. résultat yi moo koy wane. résultat yi ñoo koy wane. nit nag mun ngaa liggéey lu mu métti suñu borom def nag di nga am doole bi mais sa saison bi du baax mais sant suñu borom nag comme saison bi nu mu tàmbalee nii mu continuer noonu rek waaw. ren ñaata ñaata drapeau nga jëlugum ba nga duggee ba ren ba saison bi ubbee ak léegi gannaaw ba ñu génnee ci corona bi. loolu ma loolu nag xaw ma ko nag. mbër xam nga li nga jël. barke Sëñ Fallou mun maa compter lu ma jël. billaahi. dafa bari wala bariwul. non man c'est lu ma lu may lu may bëri moo bari man nag fu may dem bari na de du kese lay dem mais loolu yëpp euh, soxlawu famille la. na Casamance nga fa am cër. Casamance bien vrai que dama ko am cër dama fa am cër sama papa fa la juddoo sama yaay fa la juddoo man ma juddoo fii. waaw am na yenn yoo xamante ne itamit bu ma ko bëggee am foofu dama koy am fii am na yenn yoo xamante ne itamit fii laa ko mun a amee mais xam nga tey adduna bi tey euh, daa tere di maanaam tey di nga waxee ni ñuy gisee ni wala ñiy gisee nee mais duusaane duusaane ñëpp la man limité wu ma sama bopp de xam nga lu tax limité wu ma sama bopp ñu ma sopp ñëw bari tey gii dëkk bu ma nekk mun naa faa dëkk dëkk bu ma dugg mun naa faa dëkk di dund carrément comme lu may dund sama kër fii xam nga dama kaa dund ak gaa yi même mbër yi sax damaa dund ak ñoom loolu affaire bi wax bi ñoo bari rek. ñu bari mais ñu bu ñëwaatee ci sa diggante ak waa Casamance. ah. <laughs> diggante ak waa Casamance bul dëgg bal bi nga demee Casamance lan lan la jox sëriñ ca bi ngay ñëw. ah xanaa ñaan ñaan rek. waa ñaanal nañ ma moom franchement ñaanal nañ ma waa fooñi aw seen fay billaahi bali ñaan aw seen fay fooñi tout bajul ba caamu ji sofoor am sofoor jakk billaahi ji fag man ji benn ne duwooy man ji jaw mën nañ jàpp ne Doudou Sané doomu séeréer ak joola pire dégg séeréer dégg joola waaw gis nga noon la man bu ma mënoon dëgg làkk yi yëpp Sénégal ma dëgg ko ndaxte ñëpp a may sopp moo tax xeet bu nekk dama koy jàppee comme sama bopp bëgg naa tamit ñu ñëw ci façon bi nga xamante ne bii moom ngay bëree parce que li la gaa yi jëwee maa la koy wax de hmm. waaw gaa yi ne nan ngàdd yi ngay ngàdd dafa metti ngàdd yi ngay gàdd dóor bal fii xëcc ah lan la. ah ngàdd yi ñoo gis rek ñoo gis lu mu méttee rek mais Doudou Sané day bëri rek comme mbër yi rek day bëri rek comme mbër nu ñuy def rek lay def waaw ndaxte yow seetaan nga ñu dóor ma bal. seetaan bal waaw kon am na yoo xamante ne moom jaru ko lu nekk def nañ ma ko ci làmb façon xeex bu nekk def daj naa ko ci làmb mais yàqalumaa dem ndaxte man damaa gëm sama bopp am na jaar-jaar yoo xamante ne boo ko amee boo gëmul sa bopp doo ci génn tey man lu ma doon dund bu ma gëmutoon sama bopp duma ci génn te des na lu bari nag defaguñu tus lu nekk dégg naa ko ci làmb tey jalousie sax da nga koy dégg ci mbëri ñuy wax ne du saane daa naan daa jël affaire yooyu <laughs> mais damay ree rek amalu ta ñoom daa am lu leen réeree mbir ci man gis nga man damaa yàgg a nekk nitu yaram damay wa damay rës nag ñu ma nekkal depuis mu ma nekkee tout tànk xam nañ lu ma wax damay rës di njool sama yaram bi di gën a baax ne non day naan ay per yi taluñu loolu barke Sëñ Faalu billaahi wal kitaabi am na yoo xamante ne mbugaan sama moniteur bi moo la ko mën a seedeel wala ku ma doon fanaana soo jël ay protéines. ñoom Lamine Thiam ñoo la ko mën a wax dama doon tëdd guddi ba sama yaram bi déclenché tàngoor du ma mun a nelaw ku ma doon fanaana Lamine Thiam daa mujjee tiit mu ne ma lan la lan moo xew sama yaram di tàng jër ma xëy sangu dem entraînement mu ne ma bul dem ma ne ko noonu daa amoon benn woy chaque jour bu may tëddi moom lay déglu jooti mbuude yaay ma muujoo ñaap ki xaalis maa ma dentel bees fa daa njomee euh, daf may motiver lay soñ waaw daf ndaxte itamit euh, xam nga tey dangay toog si benn moment yoo xamante ne dangay soxla te li nga soxla li ngay liggéey moo la ko mën a may kon dangay wut loo xamante ci li ngay liggéey loolu lay wax nga koy déglu pour loolu mu lay motiver xam nga am na am na yenn xam koo xamante ne day bëre ëllëg mu bëre jiwaat daa laaj récupérer akama am yëg-yëg ci nit xam nga am na yoo xamante ne nit yi ñoo la ko mën a jox tey boo xoolee sama combat bi kese ñu bari xaarewuñ la ma pour ma indi mboolo boobu te ñu desoon ñoo gën a bëri sama grand yi tamit ñoom Babou Sarr ñoom ëbbal yi am nañu komba euh, Babou saa yaakaar naa lu vingt la ma wax mais itamit Babou Sarr moom ak Obali maa leen di ñaanal moom ci lu ñu jublu suñu boroom dooleel leen moom bésam yàlla na ko suñu boroom taxawu mu am ci ndam bu sedd guy may woo nag ñëpp daa laaj mbooloo mais surtout si arène bi nañu gaa yi jël xam nga lu tax promoteurs yi xaalis lañuy ñuy wër te ñun ñooy joxe xaalis bi ndaxte koo xamante ne boo jógee ñi lay topp kese grand combat yaa leen di ëpp mbooloo kon promoteurs yi nañu xool loolu. dinañ ñëw ci li nga xamante ne bii mooy arène bi mais bala ñoo dugg ci arène bi sa diggante ak Toubacouta tamit jaaxal na mu trop yéen ñaar fu ngeen dajee coow li day bari trop. <laughs> dañoo bokkul yoon xam nga xam nga mbër yu bokkul yoon. bokku leen yoon. bokkuñu yoon lu tax. Euh, moom c'est que lenn yàlla da kaa wóor lenn mu mun a wax. xam nga suñu borom bi warsagal jëf kon yoon yi bokkuñu tey gi ne booy ànd ak kuy jëf kii di ànd ak koo xamante ne suñu borom da kaa warsagal wax mais am na yenn yoo xamante ne jarul muy sori. ñaata yoon ngeen bëre. moom mu ngi wax ne daf maa daan cinq affaire yooyu Toubacouta 4-4 la ñuy bëre nii. 4-4 ngeen nekk nii. waaw 4-4 la ñuy nekk. génnoon naa métti trop bu may bëre booy door a dugg luur def naa six tournois euh, six tournois benn final laa am ak saako xamam final boobu laa waroon daan ñu jox saako xamam victoire ñu tase mu ne ma arbitre de ñu leen neex la ñuy def mu ne ko garaawul yàlla na la jig <laughs> moo xam na xam na waaw man xam naa loolu ay tolof tolof la rek ci noonu ma gën a waajaat rek ma yooyu dañoo dama jaay jaayante dëgg dëgg dëgg dëgg ndaxte ñu bari dañoo wax ne booy bi xamul boppam na wàcc lu mu yéegee bi nga yéegee luur. waaw xamul boppam na wàcc lu mu yàkkamte ci kaw. mais xam nga tey man lu ma gëmul toog poussière deux ans raw gàddu deux ans tànk deux ans affaire yooyu daa métti suñu borom nag day natoo nit mu def yooyu ndaxte tey boo amee gabari bi am na yenn yoo xamante ne safit moo la koy xaj te moom moment yooyu dama sentir sama doole. dangaa sa bopp. waaw dama sentir sama doole ma xam ne mun naa jaayante ak ñoom ma tegu ci rek mu metti nag ma muñ ko ne te itamit dem te amoo daa metti boole waaw dem wuti ñàkk mais bu ma ñëwee sax dama koy gis samay mbokk mm-hmm. ma yegsee si kër gi ku nekk reer bi fii lay tegee kenn du reer booy yëpp kenn du reer mm-hmm. ñu muy àndal yëpp moo tax ñuy wax ne Duusaane ay xale lay àndal affaire yooyu Duusaane àndul ak xale de mm-hmm. ay moroomam lay àndal ak ak ay ay kilifaam ndaxte itamit am na ay kilifa yu bëri dama leen di déplacé mais day toll moment yoo xamante ne dangay am ànd ànd ak koo xamante ne daa xam làmb daa dund làmb moo tax ñu bëri di sikk ñaan moo tax ñu bëri di wax ne comme man di teg ñaan affaire yooyu di wax ne ñaan lay àndal sëriñ la affaire yooyu ñaan dundul ci affaire sëriñ kooku daa xam làmb philosophie làmb la xam réalité làmb la xam moom dalay teg ci kot nga dem ma ko ñaanal bu baax nag samay sëriñ moom mënuma leen tudd si <laughs> kii. ñaata sëriñ nga am. non aw ma sëriñ yu bari sax ay ñaari sëriñ rek la am. <laughs> baal si yi ngay def li ngay andi ci ay butéel ci ci làmb ji yëpp ñaari sëriñ ñoo la koy jox. waaye ñaari sëriñ rek waa ñoo xamante ne itam si borom bi rek lañ may ñaanal laaj man teguma ko position si làmb xam tax. tey jii nii yow mii buñ la ngeemoon ngeem bu gën a baax si Sénégal doo ma daan. ndax aw ma doole ji quoi. waaw doole bi la moo tax am na yenn yoo xam ne sëriñ mën na dëpp sa xel na. sëriñ lu mu mun bari na de lu mun ak amoo bari. ban jour nga daanu ban jour la la mbër daan mu leer la ne ki la daan mënu la mais sëriñ moo tax mu daan. non loolu nag duma koy compter xam nga lu tax xam nga kuy doxee gëm-gëm du gëm ne sëriñ moo koy daan <laughs> man lu lu ma dal rek suñu borom moo ma ko war a moo ma ko teg nattu la rek man tegoo ko dem ay bàyyi faa lañ nag am na yoo xamante ne jaaxaluñu de nit yee la jaaxal Toubacouta Fatick bi gars yi di coow affaire yooyu mais jaaxalul Sané xam nga lu tax réalité làmb la làmb yi tamit suñu borom daf ma doon won lu bari xam nga tey dem naa ay saison daan ay samay mag affaire yooyu moom itamit sama grand la mais boo ko ko waxee mu commencé xataraayu wax loo xamante ne itamit waruñu kaa wax mais itamit ci ci jëmm boo ma xoolee ne maa mag Toubacouta waaw ndaxte suñu borom moo ma ko teg mais mooy bindee noonu voilà. ban jour ban jour nga dem ci làmb euh, ñàkk làmb ja mu metti la trop. Hmm. mu leer la ne tey jii da ko war na jël mais da nga dem ñàkk. te doo xam nga ne Sané nanguwul defet defet yi yëpp ñëw ma métti. <laughs> loolu gis naa ko ci yow sax ba buñ la daanee parfois da ngay siisu siisu boobu tamit jaaxal na ma buñ la daanee ngay siisu di xatraayu am na am na am na supporters yu bëri di la topp bëgg la siisu boobu ak sa jom moom moo tax ñu lay supporter bëgg naa xam lan la. xam nga tey booy dem ci làmb xam li nga bàyyi sa kër xam li la war si kër gi xam li lay xaar kon waroo dem yaakaar boobu yëpp nga teg ko sa xel bi am na mu man moom damay damay wax ne sama xel bu dalee kese damay bëri damay bëri ba sentir ne man mii damay bëri damay bëri ba yëg sama bopp ne damay bëri mais loolu itamit si condition nga xam nga nga bàyyi dara kër gi du du nekk pression ci sa bopp tey génne booy amee soxla nga koy bërëwaale ndànk ngay bugg di def pression lay doon ci yow <laughs> waaw pression lay doon yow ndànk ngay bugg di def ay benn bennal ngay di def ba jot mais tey boo xamee li nga bàyyi sa kër xam ne normal la non boo demee si làmb ba mais affaire ngay def. <laughs> Doudou daal buy génn ci kër gi kër gi lépp lépp lépp nice bu demee ca làmb kenn du ko attan. mukk mukk barke sëñ Fall <laughs> te du seetaan yàlla amul semaine bi weekend bi nu mu mel mais sant borom bu baax a baax daa amoon lu xaw na tane suñu côté rek moo tax mu demee noonu Kaolack bi gis nga nu mu demee suñu xel daa dal rek moo tax mu demee noonu. boo toogee niveau de Dakar lu tax mbër yi mën ñu loolu la jàppale bi dañoo am jàppale te tey gii ñun boo xoolee boo jëlee benn drapeau rek. ku la bëggoon may 1000 francs koy nga téye day wax ne am na xaalis te amaana xaalis boobu ñu ko séddale bi moo yaatu. li ngay àndal. li ngay àndal ñi lay jàppale sa entraînement ya li nga war a def sa kër kon yow amoo dara.